allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa qudwatina wa nabiyina muhammad alayhi salaatu wa salaam wa ala alihi wa ashabihi tahirin mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen eh, ndokkeel di sant yàlla bu baax di seede ni amul benn buur bu nuy jaamu ku dul yàlla ñoo ngi seede ni suñu sang mooy mu yon mooy muhammad sallallahu alayhi wa yàlla yàlla na nga dolli sa xéewal ak sa jàmm ak sa mujj si yonent boobu nga xam ne fu ñu tuddee turam teg si sallallahu alayhi wa sallam moom rek nag lañ ko war a wax. sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam ab yonent rek lañ koy wax keneen du ko wax keneen ku dul yonent. yonent yi ak yonent bi mujj muy yonent yàlla Muhammad waaye keneen ku moom rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm yàlla ko yàlla yërëm saxaaba yi sax loolu lañ leen di wax te ginnaaw yonent bi ñoom ñoo gën si xeet wi mbokk jullit yi ñoo ngi dellu siwaat yéen ñiy faral di taamu chaîne bii de Al Misbah TV si dar si fiq yi ñoo ngi ñëw nag si sunna yi nga xam ne mooy sunnay njàpp ginnaaw bi ñu leen waxee farata yi mu ne wa sunanuhu samaaniya sunnay njàpp nag moom juróom-ñett la xam nga bee farata yi juróom-ñaar la sunnay juróom-ñett la bi ci njëkk mooy xaslul yadayni qabla idxaalihima fil inaa'i nga raxas say loxo bala nga koo dugal ci ndab li bu fekkente ne nag yoroo ndab sata nga yor raxas sa loxo ñetti yoon wa yan wii bi xaslihima attaabudi te booy raxas nag sa sa sa sa loxo yooyu dang koy yéene nag mu nekk ak jaamu yàlla. mu ne nag sa loxo yooyu ngay raxas benn bu si nekk da koy raxas ñetti yoon moo mu ne wa yaxsilu kulla waxidatin ala xiddatiha salaasan benn bu si nekk ñetti yoon nga koy raxas ba si tikki jara yi mooy fi ñuy takkee montre asaaniya sunnam ñaareel bi almat matatu mooy gëllax ndiku lan mooy galaxndiku idxaalul maa fil fammi dugal ndox mi si biir gémmiñ gi summa yu xad xiduhu nga daal di koy galaxndiku si biir bu ko defee nga daal di koy yàbbiwaat sunna ñetteel bi asaalisa mooy al istinshaaku mooy saraxndiku lan mooy saraxndiku wa huwa jazbul maa'i bi nafsihi li daaxili fi an fii nga xëcc ndox mi si sa bakkan pour mu dugg si biir ba pare nga génnewaat ko arabi atu sunna ñeenteel bi mooy al istinsaaru mooy fiiru mooy génnewaat ndox mi wa huwa daf'ul maa'i min al anfi boo xëccee ndox mi génnewaat ko kon mooy sunna ñeenteel bi a jaali shababati wal ibhaami min yaddihi al yusra allah an fii ànd ak nag nga jël sa loxo maanaam baaraam bi dëy bi ak baaraamu sànnikaay bi nga def ko si bakkan ba pare mën a fiiru ndox mi nag mu génn wa yubaaligu xayru saa'im ki nga xam ne nag moom wóorul ko mën naa fiiru bu baax waaye ki woor nag na fiiru ndànk par ndox pour ndox mi bañ a jàll. moo tax mu ne wa yubaaligu gayra saa'im fil madmada wal istinsaaqi ki nga xam ne moom dafay dafa wóorul moom mën naa galax di bu baax mën na sarax di bu baax waaye nag boo wooree nag galax di ko a yem parce que galax di ko mën naa rëcc te bu rëccee daal di dem si biir te fekke ni da ngaa te mën naa yàq sa koor mu ne wal afdalu an yatamadmada bi salaasi xarafaatin li mooy naga ñetti yoon suma yastanshiqu bi salaasa xarafaatin mu fiiru ñetti yoon sarax ndiku ñetti yoon alxaamisatu juróomeel bi mooy masxul usnayni masaasay nopp zahirihima biir nopp biti nopp yi wa baatinihima ak biir nopp yi loolu mooy lan mooy bi an yudxila sababatahu day jël baaraamu sànnikaayam dugal ko si biir paxi nopp bi fii si ma xay xayhi si biir ñaari paxi nopp yi wa yajala ibhaamayni ala zahirihima léegi nag ñaari baaraamu dëy yi moom day nekk si bi si si biti nopp bi maanaam si kubéeri nopp bi maanaam ni nga may xool nii mooy dangay jël sa baaraamu dëy bi teg fii jël sa baaraamu sànni kaay bi dugal ko nii si biir pour man ko raxas baaraamu dey bi gis nga fii si ginnaaw lay raxas nii nii lay raxas si ginnaaw baaraamu sànni kaay bi si biir moo tax mu ne da jël baaraamu sànni kaay bi dugal si biir baaraamu dëy bi nga def ko si ginnaaw nopp bi loolu mooy juróomeel bi mu ne asaadisa juróom benneel bi mooy tajdiidul maa i li masil ni mooy nga beesal ndox mi pour masaa ñaari nopp yi beesal ndox pour masaa ñaari nopp yi ki mooy lan mooy dangaa masaa sa bopp dellu si sa loxo xaw a tooy nga ni kon naa continuer masaa si nopp yi ñu ni la déedéet sunna la nga defaat ndox si sa loxo ñëw masaa nopp yi mais bul ko bul yem rek si li nga xam ni moom nga masaa bopp bi moo tax mu ne wa tajdiidul maa i laat ndox mi li masxil usnayni pour massa ñaari nopp yi mu ne asaabi atu juróom-ñaareel bi raddu yaddayni fii masxil raasi mooy nga delloo si massa bopp bi booy massa sa bopp maanaam dem gi farata la mais delloo si gi nag sunna la kon bu loxo bi di dem ba yegg si ndong gi farata la farata ba foofu la yem boo koy delloo si nag ba fii loolu sunna la moo tax mu ne wa raddu raddul ya day ni delloo si ñaari loxo yi fii masxi raasi si masa bopp bi mu ne assaamino juróom-ñaareel bi nag mooy lan mooy tartiibu faraidihi mooy farata yi nag danga koy toftale maanaam bul teqale farata yi fan nga tàmbalee farata bi ginnaaw bi nga defee yéene raxas xar kanam lu ci tegu raxas ñaari loxo ba ci coñcoy lu ci tegu massa sa bopp ah euh, nga massa noppi ñëw raxas tànk yi gis nga toftale googu nga ko toftale noonu mu toppante loolu sunna la kon gis nga juróom ñetteel bi mooy tartiibu faraidihi léegi nag mu si biir farata yooyu nag ak sunna yi mu am benn tanbiih bu mu la defal maanaam bàyyi xel mu am lum la bàyyi loo xel lan la la bàyyi loo xel mu ne man taraka fardan min faraidil wudui fa innahu yati bihi suma yuidu salaat mu ne ko bàyyi benn farata si farata yi njàpp maanaam yow da nga tëb sa xar kanam fàtte koo raxas walla sax nga tëb sa bopp masaa masaa bopp bi fàtte nga ko te loolu day dal doom aadama am benn farata boo xam ne nii fàtte nga ko fàtte nga ko def da nga koo tëb nga julli ba pare rek sa xel ni yar ni man de man de masaawu ma sama bopp ñu ni kon boobu looy def mu ne moom day ñëw masaa bopp boobu te julliwaat waxu la day ñëw jàppaat de déedéet cër bi nga tëb rek tamuy farata moom ngay ñëw def bu dee bopp dangay jël ndox rek masaa bopp bi waaye nag dangay ngay julliwaat bu dee loxo da ñëw rek raxas loxo bi waaye nag da julliwaat farata yi la limal daal benn boo si tëb farata boobu. dangay ñëw nga defaat ko ba pare nag julliwaat su fekkente ni nag yow farata boobu defaatoo ko bi nga jullee ba pare a ah, ne la ne nag sa julli googu nag moom wirul loolu la wax si farata ku fàtte farata léegi nag sunna nag ku ko fàtte nag mu ne wa man taraka sunnatan fa innahu laa yuidu salaata wa yafalu tilka sunna mu ne koo xam ne nag yow li nga fàttee def mooy sunna maanaam yow masalan ma masaa nopp nga fàtte ba nga julli ba pare sa xel dem ni saw sa nopp yi masaa woo ko doo baamtuwaat julli gi mais da ngay ñëw rek masaa waat noppi continuer dem sa julli baax na. danga ngaa fàttee galaxndiku si biir julli gi yow sa xel ni yar ni ah man de bi may jàpp galaxndiku wu julli nga ba pare ndax da ngay bamtu julli gi mu ne déedéet ndax loo kooku sunna yi la bokk da ngay ñëw rek daal di gàllaxndiku daal di dem continuer te doo baamtuwaat julli gi. kon bu dee farata boo si fàttee benn farata nga julli ba pare da ngay ñëw defar farata boobu nga fàtte dal di julliwaat bu dee sunna boo si fàttee benn da ba julli ba pare da ngay ñëw defar benn boobu nga fàtte si sunna waaye nag doo baamtuwaat julli gi maanaam loolu la lay bàyyi loo xel moo tax mu ne woo man taraka sunnatan ko bàyyi sunna fa innahu naka moom laa yuiidu assalaata du baamtu julli gi wa yafalu tilka waaye nag sunna boobu mu bàyyi daf koy def waaye nag du baamtuwaat julli gi mu ne lima yustaqbalu mina salawaati su ko defee yow soo defaraatee sunna boobu léegi li la dese si ay julli man ngaa continuer di si julli feek sa njàpp loolu tëjul waaye du caa du jar ngay jàppaat yaakaar naa li wax leer na moo di ne yow mi nga xam ne dangay ngay jàpp nga fàtte benn farata si cëru njàpp yi nga julli ba pare sa xel fàttaliku ko da ngay dem cër boobu rek ngay raxasaat bu dee bopp la bopp bi rek ngay masaa waat bu dee loxo la loxo bi rek ngay raxasaat bu dee tànk la tànk bi rek ngay raxasaat nga baamtu julli gi ndax faratal la bu dee sunna nag li nga bàyyi sunna la lu mel ni masaa nopp lu mel ni galaxndiku moom nga fàtte loolu si jëmmi boppam da ngay ñëw rek defaat ko waaye doo baamtuwaat julli gi moo tax mu ne li maa yustaqbalu min as-salawaati ñeel julli yi nga xam ne moom moo des si sa kanam nga nga dëgmal ko si julli yi di nga ko mën a julliwaat kon tan bii boobu maanaam bàyyi loo xel boobu attention boobu la doon wax si wàllu farata njàpp ak sunne njàpp su ko defee nag dañuy ñëw si si fadaa il xam naa loolu bu ñu dellu si waatee ak yéen suñu dars bi di ñëw si la ñëw nag si ngëneel yi kon faratay njàpp ak sunnay njàpp ak yi ko jiitu sobeek yooyu yëpp jàpp naa ni leer na su fekkente ni ñi koy bàyyi xel di déglu ku si am ko lënt su yónnee laaj yi si technicien bi bu soobee yàlla bala ñoo tàmbali suñu beneen le leçon dinañ tontu laaj ba mu leer ñu soog a jël dars bu bees seen mbokk Oustaz Adama Diop moo àndoon ak yéen si darsu Laxdari Euh, Cedar Sup euh, Muqaddimatul Izya di ñaan yàlla nañu yàlla defal juma mubarak euh, defal ñu it suñu ajjuma ji mu barkeel lool yàlla nangu suñu jaamu yàlla yëpp yàlla defal ñu jàmm si réew mi ñu nekk si tolof tolof yàlla na leen yàlla teggil tolof tolof yi. ñi nekk si biir kaso yi yàlla na leen yàlla génne ñi nga xam ne ñoom it ñoo am ay feebar yàlla na leen yàlla saafara réew mi liñ ci tiit yàlla bu ko si yàlla def yàlla na fi yàlla def rekk jàmm ndax jàmm si la lépp xaj wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala al ashabi wa sallama tasliman خاتم الكل